waxtu ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yem ak waxtu xibaar yi nees gis ñu dikk ak yéen ci di ci gën a fës. bokk ci li gën a fës ci xibaar yi eh, ndoomi aadama yu takk yuy faatu ci tali gi ñeeli accident mbir mu ni mel waral ba monitaru auto yi yëglu la bëgg nag mooy nguur gi jël ci ndogal bokk ci yooyu ndogal nag daal saytu lu jëm ci tàggatu gi ngir jot ci permis de conduire fële ca Garewo nag lu jëm ci ñeent fukk ak juróom hectares suuf yi ñu jox ab promoteur bu fare biti réew moo fa jurub coow askan wi dajaloo ci ab collectif ñoom a bi gi wax ni kon dafa salfaañe na ko jural askan wi waral kon ba ñu nekk jamono ji ci lu jëm ci prévention ci diwaanub euh, Sédhiou service d'hygiène nag daal di dem ci askan wi jébbal leen ay di kit euh, d'hygiène dinañ waxtaane itamit ci lu jëm ci faatuk ki nga xamante ne moom moo di Robert euh, Mugabe nekk nag ki nga xamante ne moom moo doonoon njiitu réew ci fan fanweeri fan ak juróom-ñaar ci réewub Zimbabwe mi ngi ak euh, mbokk yi ginnaaw bu ñu rafetloo ni ngeen di ànd rek suñuy programme ñu gërëm leen ci topp gi daal di tàmbali lu jëm ci xibaar yi wax nag ci euh, kon ñeenti téeméer ak euh, fanweer ci doomi aadama yi nga xam ne ñàkk nañu seenu bakken lim googee nag ñu xayma ko ci diirub at bi bi mu tàmbalee ak léegi mbir mu nu mel doy sëkk ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllub auto école muy moniteur yeeg employeur yi ñoom daal di xam leen nag fi mu ne war nañoo jëli ndogal ci mbir ma bokk ci yooyu lim ndogal yu nguur gi war jël ñu jàpp kon mooy rek xaajale ñi nga xamante ne dañuy dem ci auto école yi ngir yor permis waaye itam ña nga xamante ne dañuy jàng dawal te duñu wutali benn auto école ñaari mbir yooyu ñoom jàpp nañu ni bu ñu ko lijjantee ba noppi rek yile accident mën na wàññeeku ci itali bi ñu ànd ceeg reportage bu Lassana Cissé ak Baye Dimboub ñeenti téeméer ak fanweeri nit yu ñàkk seen bakkan lu ëpp fukk ak juróom-ñetti junni yu ci jëlee ay gaañu gaañu loole mooy xayma yi nga xamante ne accident yi def nañ ko ci réew mi ci atum ren gii mu nekk nag ay xayma yoo xamante ne doy na lool waar ba sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy moniteur auto école yi daal di ciy àddu ki nga xamante ne nag moom mooy seen yit lu mu jàpp mooy ni kilifa yi dañoo war a dakkal ni nga xamante ni noonee la ñuy joxewee lii di permis yi. que Sénégal ñaari euh, examen moo fi am dafa am examen bu ñuy wax particulier maanaam ku mu neex nga dem déposer dossier boo te doo jàng ci auto école yi nga dem passé en candidat libre am ñoo xamante ni ils se font faire dañ leen di former ci ci bërëbu auto école yi ba pare ñu door a passé ñëpp xam na ni que ni li ci ëpp yooyu véhicule transport yi nga xamante ni ay conducteurs professionnels ñoo leen yor te duñu jaar ci auto école yi ñoo ñu ngi impliqué wu ci accident yooyu. ñoom formateurs yi lu ñu jàpp mooy ni tali bi dafa am benn code boo xamante ni dawalkat yëpp. benn gis-gis bi lañ ci war a am. jafe-jafe bi mooy man suma ma jàngee te yow jàngaloo ñu daje ci tali bi duñu comprendre te te bu ñu comprendre comprendre teewul ay jëye rek lay jur mooy musiba yi nuy gis ni tali ñëpp war a comprendre. benn façon lañu war a comprendre ñun ñëpp dañu war a xam lan mooy code de la te suñu tali yi li ñu ciy gis mooy ñetti xeetu dawalkat am na ki xam code de di ko jëfee am na ki xam code de la te jëfewu ko am na ki nga xam nag xamul code de la bu weesoo fànn yooyee moniteur yi di woo kilifa yi ci ñu gën a ñaax askan wi waaye it doole li nga xamante ni moom mooy formation bi mu nekk nag mbir moo xamante ni dina jafe loolu bu fekkee ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy formateurs yi amuñu école boo xamante ni fa la ñuy tàggatuwee Lassana Cissé ñu gërëm ko mbokk yi wax ci wàllub euh, suuf ak collectif bi nga xam ne moom moo boot askan euh, wi loru ci suuf ba ñuy sax saaxee fële diwaanu diwaanub Géréo ñoom naka daal dinañu yëngu ni ki démb askan wi nag la ñu bëgg mooy nguur gi deltu ginnaaw ci ndogal ba mu jël ngir jébbal ab entreprise bu bàyyeekoo biti réew lu yem ak euh, ñeent fukk ak juróomi hectare ci seeni suuf la ñu jàpp sax ñoom ñooñee fare ci Géréo mooy rek ne nguur gi fi mu ne dafa salfaañe niki démb janoon nañu ak yi xibaar yi ci teewaayu Babacar Tombe du ak Baydi Mbuub ñu nekk li ëpp ci ay junniy famille ñu nga xam ne dañoo taxaw temb rek ni li nga xam ne mooy anam bi ñuy caxat-caxatee seeni ay suuf du ama ni fi nga xam ne moo di géeraw nguurug Sénégal nag daal di jël ab dogal signé ñaari décret yu nga xam ne lu ëpp ñeent fukk ak juróom ci ay hectares daal di koy jox entreprise bi ñuy woowee Decameroum ci gox boobule looloo waral baskanu géeraw daal di taxaw ne duñu nangu lu ni mel au nom de quoi on accepterait ça. ana lan moo waral tax ba ñun ñuy nangu li ni mel gis nañu Sénégal nag boo fi amee jafe-jafe boo jógul yuuxu rek wala nga def yenn yi rek ah, nit ñi du la déglu waaye man mi nga xam ne maa di wax ci turu ñi nga xam ne ñoom la ñu jël seen ay suuf ma di xamal nguur gi rek ñun duñ leen bàyyi ñu def li ñu bëgg te bu fekkee nañuy jaar suñu kaw sax pare nañu ngir dem ci ba jeex. ça va pas être facile pour qu'il askanu Gero di xam ne ni rek nguurug Sénégal dafa salfaañe li nga xam ne mooy seen ak ak seen yelleef lu ñeel wàllum suuf si mu ne ay kàddu yi nga xam ne nag seen avocat daal na koy dëggal. gis nañ ne dañu salfaañe code des collectivités territoriales dañoo salfaañe jalgati code di domaine de l'État dañu jalgati salfaañe la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité loolu lépp dañ ko salfaañe te yoon mayewu ko. te réewu Sénégal dafa war a tënku ci yoon woowu. si kaw loolu nag coowul suuf nekk li nga xam ne mu ngi wéyandil fii si Sénégal looloo waral baaskanu Gero mi nga xam ne dañoo bokk ci li lu di woo rekk bépp askan bu nga xam ne yaa ngi dund jafe-jafe yi lé ngeen lëkkaloo ngir amal xeex bi lé gis nañ ni coowul suuf mu ngi wéy bu baax a baax ci réew mi li ñuy def rekk mooy boole suñuy doole maanaam ñu ngi woo bépp askan bu nga xam ne dangay ngay li nga xam ne moom la ñuy dund ci jamono bi ñu tollu ñu jël suñu ay suuf daal di koy salfaañee nga ñëw ñu booloo nekk benn amal ab doxub ñaxtu bu wéy fii ci ndakaaru gannaaw bu ñu yenoo taskatu xibaar yi nag ki di seen avocat di maître Moussa Sarr daal di xam ne ni ñoom dem nañu fa mbaxane doonee benn lu ñu bëgg rek mooy ñu daal di annuler décret yi nga xam ne teguñu ko ci benn loi askanu Guéréo nag di am yaakaar ne dinañu am ndam ci mbir mile ba daal di delluwaat yenn ci activité ci xamante ne ñu ci bari ci wàllum mbay la ñuy yëngatu waaye itam wàllum jënd ak jaay mu ko ñu wax ci service di euh, d'hygiène bu fare file ci ndakaaru daal di teg loxo ci diggante weexub mai ak euh, août lu jëm nag ci ay euh, produits yu takko takku yi nga xamante ne dafa daal di yàqu te ñu ko doon jaay ci yenn ni bërëb mbir mu ni mel nag waral ba soldaar bi yi yëngu ci wàllu cet gi di sàkku ci askan wi ngir ñu mën a gën a mën a bàyyi xel nag ci li nga xamante ne moom la ñuy faral di jënd ci yenn bërëb rawatina jëfandiku gi nga xam ne moom la ñu ca yamal Babou Ndour Abdoulaye Ndiaye ci tamit produit yoo xamante ne baaxul pour ñu consommer ko moom la waa service d'hygiène bu département bu Dakar jàpp te loolu ñu jot a jàpp tax nañu sauvé ci lu toll 500000 doomu aadama. produit yi nag produit la produit yoo xam ne ku ko lekk mën na leen ay feebar yu bon lu demee nag ay botulisme lu demee nag ay choléra lu demee nag ay dysenterie ay salmonelle yooyu yëpp mën na la koy jox. te lii di multiplication produit yi nga xamante ne baaxul benn yoon mën a jàpp ne pandémie mondiale la te loolu lu koy gën a indi moo di comportement bu ñaaw. produit bi nag du Sénégal rek àdduna yëpp la daj circulation problème la. boo demee Amérique da nga ko fay fekk boo demee amul Europe da nga fekk Asie du Sud-Est ak Europe nag ñoom ñoo ci gën a sonn li fiy dee dafa ëpp produit bi day rey ci at mi quatre cent vingt mille personnes cent vingt cinq mille ay xale lañ de zéro à cinq ans donc trente feebar yooyu muy joxe mën nga dem am ay cancer ba am hépatite A. waral waa service di d'hygiène di wax ne pour loolu mën a antu soxla nañu ndimbalu population yi ak ñi nga xamante ñoo di commerçant yi ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ne moom la ñuy jaay. ak jaaykat yi ak consommateur yi waxtaan pour ñu dajale seen doole ak seen xalaat pour gën a xeex lii Senu Jeunes na yokk mobilisation bi ak vigilance bi pour stopper progression affaire bi askanu aussi mu gën a seetlu li muy jënd boo gisee produit boo xam ne date bi dafa périmé wala mu mu bombé wala prix bi rek lu jar 500 ñu ne la ñaar fukk war nga am njort na kii baaxul nga moytu ko. bu ñu teeloo Alla Ngom ak mu àndal ñoom daal ñu ngi wax ni 3 tonnes nga xamante ne jot nañ ko jàpp tax na ñuy versé ci lu toll 12 millions de francs CFA. fii di trésor public ñu desandi ci mbirum service d'hygiène waaye bi la yoon nag wax fële ca diwaanub euh, Sédhiou lay doon foofe nag wàllub taw bu bëri ba fay wàcc jural ñu leen ci askan wi lu jëm ci wàllub loraange ak i feebar moo waral kon ba ñi nga xam ne ñoom ñoo fari euh, ci brigade euh, régionale d'hygiène daal de wàcc ngir nag nemmeeku askan wa dëkk ci yenn ci ay diwaan yi nga xamante ne ndox bi dalee na sonal bokk ca la leen foo gën a yóbbu nag mooy wàllub sensibilisation bi ñu daal de tàmbali ci yenn ci ay feebar yi nga xam ne nawet gi dafay gën a bëri daal di lu jëm ci ay kit d'hygiène ci lu tollook ñeent fukk ci njaboot yi xam ne taw bi daf leen ah, daal di jural ay loxonge ca diwaanub Sédhiou Robert Diandi lañ ci fekk. taw yu metti ñu nemmeeku woon ci biir région wu Sédhiou ay bés yële ñu génn te mu yàkkoon lu bëri ci dëkk bi waa service régional d'hygiène demoon nañ nemmeeku askan yi ci loru rawatina ñi nga xam ne dañuy naan ndoxu teen yooyu nga xam ne dañuy njort ay jàngoro dugg ci. am na ay kër yoo xam ne dañoo daanu c'est vrai inondation amul parce que ndox bi yëpp dem na. mais puisque Sédhiou comme ni ngeen ko xamee euh, am na kër yu bëri yoo xam ne am nañ teen seen seen seen seen si kër gi donc euh, c' était plus urgent c' est ñu mën leen recenser pour euh, jox leen kit d'hygiène loolu tax ba ñuy ñaax askan yooyu ñu sàmmook lépp lu jëm ci wàllu cet ngir aar seen bopp ci yenn jàngoro yi. ne dañoo war a raxas suñuy loxo ndox ak saabu loolu rek moo ñu mën a dimbali si yenn xeetu feebar yi surtout si nawet bi. beneen bi mooy ndox bu ñuy naan bu jegewul ci forage bi comme forage su Sédhiou am na eau de javel bu jegewul ci forage bu jógee ci teen rek war nañ ko def eau de javel niñ ko siy defee mooy benn aquatap nga siy def nga bay benn comprimé aquatap nga bàyyi ko 30 minutes doog ko jëfandikoo su fekkee ni loolu amul nga da ngay jël kubéeru euh, eau de javel bi ñaari kubéer pour 20 litres d'eau nga bàyyi ko 30 minutes nga doo ko jëfandikoo. waa UNICEF ñoo jàppale ci liggéey bi waa service di d'hygiène ñi nga xam ne ñu ngi ñàkk collectivité territoriale yi ñu def li ni mel ak sous brigade di d'hygiène yi jàppale leen ci wàllu garabu cet yi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci ñoom ngir rekk ñu mën a aar askan wi yeewoo ci seeni commune ñu tej boobule pàcc daal di wax ci biir xibaar yi ci lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale ak coow la tukkee ci école bi euh, di Sainte Jeanne d'Arc ñeel nag élèves yi nga xamante ne dañuy muuru mbir mu ni mel ñu ci bëri comprendre ñu ana lan moo waral ñu daal di leen fay jëlee leeral yi nag dañ ci ànd ak mi dellu si ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum constitution ak la mu ca waaye itam règlement intérieur bu boobu lépp école la ndigum tere bi ñu tere kuy muuru fële ca collège bu Saint-Jean d'Arc way di indi ay jafe-jafe ci wàllum déggin ndax bu ñu sukkandikoo rek ci loi bi nga xamante ni dañ ko tëral mu di loi 91 22 gu 30 janvier 1991 xam ne rek ni ku ci nekk si sa religion boo mën a nekk rek war nga mën a jot ci njàng ak njàngale bu réewum Sénégal li nu mel nag buñ ko xamee ba noppi rek ca lañ waroon xam ne lii di débat wàllum muuru ci biir lekkool yi lu waroon a ñàkk la gannaaw ba nga xam ni bile waa leeral na lépp ca njalbeen dellu it di fàttali ni amul benn règlement intérieur bu l'école boo xam ne rek war na mën a féetee kaw lii suñu constitution yi bind mu mel ni boobu la leçon moo war a nag doon leçon bu njëkk bu ñu war a jàngale ci bépp l'école fii ci biir réew mi rawatina nag sans Jeanne d'Arc mi nga xam ne waroon na mën a laaj ay ñoñam yu ci mel seen Thiandoum mi nga xam ne atum 2011 lu ni mel lañ fi bëggoon taxawal ñu fexe lu ne jéem lu ne waaye mujjuta woon am te loi boobee la def la ñu bëggoon loi boobee moo fi nekk ba tey dara changé wu ci lu dul juróom-ñetti at képp yi nga xamante ni moo dox ci diggante bi tey it nekkul boo xam ne am na dara lu mu change ci liñ fi jot a tëral loi ba nopp loolu nag doy sëkk ngir dakkal bile débat deful lenn lu dul rek mën a nasaxal diggante tolérance religieuse ñu yàgg na nemmeeku ci biir Sénégal asukan euh, John mbir moomee sax dañ ci desandi ak xibaar ci gàttal ndax tey ci suba euh, ñoom ndaw yooyu nga xam ne dañ leen a tere dugg ci école euh, bile daje woon nañu ca bunt ba ci bi sept heures jotee amal fa nag ab rassemblement ngir ñaawlu anam yi nga xamante ne noonu la ñu leen génne ca boobu lépp école loolee nag ci teewaayu ñi nga xam ne ñoom ñoo di way juru ndongo yi ñoom sax nee nañu boobu lépp xeex duñu ko bàyyee noonu ndax danañu ko wëyal ba keroog ñuy am li nga xamante ne moom moo di la ñu bëgg mooy ñu delloowaat seeni doom ca salle de classe yi Euh, beneen xibaar ci gàttal wax nag ci nguur gi nga xamante ne euh, daal dinay kon jël ndogalub orienté ñi di nouveau bachelier yi ci atum 2019 2020 ci établissement yi nga xamante ne nag moom moo di université euh, publique yi fare ci Sénégal boobu le mbir nag di firndeel rek ni kon xeex ba nga xamante ne ñi di waa CUDOPES boot établissement privé d'enseignement supérieur yi doon xeex ak nguur gi ginnaaw ba ñu leen amalee fukki milliards ak juróom-ñett kon mbir ma day woy ndax seen contrat mel na ni nguur ga daal dina koy dakkal mbir moomee leen ko toppal dégtal leen ko ci yeneen jotaayu xibaar ànd rédaction bu 2S TV ñu wax ci wàllub euh, paj mi ak ab matériel bu nga xamante ne nag ñu ngi ko jébbal hôpital bi nga xam ne fa la ñuy fajee xale yi di Albert Royer nekk file euh, ci Ndakaaru ci hôpital fan ni ki tey nag la ñu doon amal ab don bu yemook fukki million boobu la mbir nag jaar kon euh, ci loxob télévision bi di 2STV ci émission boobee di tout est là ginnaaw ba ki nga xam ne moom moo di professeur Gabriel énergie ngir nag euh, daal di tàkkale ñaari siamoise mbir mu ni mel nag ñoom rafetlu nañu ko bu baax wax ne nag ñu ci bëri ci askan wi war nañoo jël exemple ci télé bi di 2STV ñu ànd ci éclairé li Moussa Sène hôpital Albert Royer bu ndakaaru di toppatoo tout tànk yi daloo nañu matériel médical bu yees ginnaaw soññ gu nga xamante ni 2STV télé bi jot na ko daal di def ci fàttali mi ngi woon ci kaw bi nga xamante ni professeur Gabriel Ngom ak ñi nga xamante ni ñoo di équipe am bu chirurgie pédiatrique jotoon nañu daal di tàqale seex yu jigéen yi nga ci émission tuute la Tunkara ak ñoom ca la ñu daal di waxtaane woon loolu ba ñu daal di gisoon ni lii kat lu ni kët ni faw mu daal di am ñu daal di am nag matériel bu ni mel. bi nag euh, dafa fekk euh, Albert waaye manqué lu bëri parce que ay feebar yu bëri yuñ ñu mënutoon opérer fii parce que amuñ matériel bi dinañ ko fi mën a opérer donc loolu xam nga day di diminuer sax charge nguur gi nga xam ne dafay yone ay ay malades yu bëri à à l'extérieur donc euh, am nañ ci benn matériel boo xam ne bu ñuy tuddee urétrotome matériel boobu day permettre day dafay opérer ay ay xale yu tuuti. ay xale yu tuuti te matériel boobu amul Sénégal. 2STV ci liñ ko daal di ràññee jéego yi nga xamante ni mi ngi koy dox ci wàllu xibaar bu werte wóor doonit it entreprise buy dox tey dugal loxoom ci lépp lu yitteel askan wi tax na ca njiit la di El Hadj Ibrahima Ndiaye ba mu ko daal di déggee naka noonu soxnaam Mariam Ndiaye ca la ñu daal di oote. ngir nag dugal seen loxo ci wàllu woowee noonu naka noonu ñeneen ca lañ ca daal di topp. village moom ak jabaram mareem euh, jàpp nañu ci loolu ak ñeneen ñi ñu àndal parce que du ñoom rek fexe ba xale yi ñu am ay jumtukaay yu ñu di mënee euh, toppatoo ci hôpital bu fekkee ñoom dem nañu toog un moment ñu yëg nii seen euh, jumtukaay yi manqué na di néewal seen doole seen liggéey. ku leen yokkal moyen ñu def ko mën a def liggéey bi ba ñu ne léegi benn xale yóbbu nañ ko bitim réew muy faju mais kooku ndam la ilaaj nee du fi yem parce moom décidé na saa yu ko yëgee xanaa lu mu bañ a yëg yu ko yëgee lu ciy def def ci loxoom def ci ay moyens ànd ci. ci loolee sax la ca ñeneen gis solos nu mu demee ñoom it ñu dugal ci seen loxo ki jiite ers di MSN. naka noonu amadu saw boutique Lao Ibrahima Niang moom it bijouterie la solution loole lépp ngir fexe ba xale yi kenn du leen génne bitim réew ngir daat leen di faji Albert waaye musoon na fi ñëw euh, bu mu fi ñëwee gis fi xale yi nu ñu yuuxoo ak métit bu ñu àndal euh, moo taxit euh, loolu moo ko animé moom ak Ibrahima yëpp. foog ñu am ambition di nit ki daal lépp loo xamante ni lu jëmale sa réew kanam te nga am. moyen boo ci mën a def comme ni suma collègue bi wax léegi bu dee big la lu mu mëntoon nga def. ginnaaw matériel bi ñu jot ñoom administration bu hôpital Albert Royer rafetlu nañ ko tey wax ni nag chaîne 2STV li nga xamante ni moom la def moom professeur Malick Faye ma leen fa teewal ma ngi koy rafetlu tey wax ni nag ku ne war na ci war a mën a roy réew mi mën a tegu ci tànk yi nga xamante ni war na suqaliku ci bépp boor. geste yu mel ni cest ay sénégalais doomu Sénégal. am seen alal boo xamante ne ñoo ko ñaqal seen bopp dal di toog ne xaaral lii dañ ciy dimbalee ay yeneen doomu Sénégal ñoo xamante dañ nekk jafe-jafe loolu loo xamante ni dañ koy rafetlu et di ñaax ñeneen Sénégalais yi ku ci yàlla jox barke boo xamante ni am nga ko euh, nga ñëw jàppale ñu ci ñun li ñu def parce que boo ko boo ñu jàppalee aussi Sénégal nga jàppale boo ñu jàppale xale yi nga xamante ne dañu feebar ñi nga xam ñun ñi ngi def lépp pour faj leen moom la ñuy jàppale. laata ñoo amal bi lépp cérémonie don bi di plaidoyer 2STV ka jiite hôpital Albert Royer di docteur Tall moom it nekkoon congé dafa dagg léppam ngir nag daal di dalal tey nag jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo def lu ni mel. ca loole ma ngay am ak càkkutéef di wax ni du yàgg dara dana daal di jébbalu bataaxal ki nga xamante ni moo di président directeur général groupe origine SA El Hadj Ibrahima Ndiaye ngir fekki si ko ci bëgg ak wéyalam dimbali ñi nga xamante ni ñoo di tout tànk yi rawati wax ci génnuk euh, àdduna ki fi doonoon njiitu réew bu Zimbabwe atum 1980 jàpp 2017 euh, muy fanweeri at ak euh, juróom ñaar moom Robert Mugabe nag ma nga génne àdduna fële ca diwaanub Singapour ci ay atam bi muy toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom dellusiwaat ci jaar-jaaram ak soxna Fatimata Diallo mi ngoog soxna Fatima Diallo duñu sori ndax dañuy desandek yow nga yëral ñu li gën a fës ci xëtu njëkk yéenekaay yi ay ca ñu dem daal di koy door ak le soleil le quotidien national mi xëy daal di àddu ci njàng mu kawe mi yéeni kaay bi nag di ñu xamal ni li ko dalee 2019 képp ku amati bac fii ci réewu Sénégal ah, ci école publique ngay jàngee kenn dootu la yóbbati ci li nga xam ne nag moom mooy école privée bi la xibaar nag ko biiral di jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne ginnaaw nag bi mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom Cheikh Oumar Anne muy jàpp ne nag lu ko tàmbalee ci 2019 bépp bachelier juillet dinañ la orienté ci lekol publique muy xamle ni nag lu tolloog cinquante sept mille cent trente bacheliers ci année bi euh, cinquante deux mille deux cent yi ñoom daal amal seen inscription ci plateforme campus seen Vox Populi daal di feelu le soleil ci wax jooju ne nag fi mu toll nii opération Macky Family ñooñu nag mooy ñi jàngee ci établissement privé yi ñooñu lañ dippee bile tour di xamle ni nag fu mu toll nii Macky Family jeex na ndax nag nguur gi daal feral établissement privé yi nga xam ne nag képp ku amoon sa bac fa lañ lay yóbbu fu mu toll nii nag jëwriñ bi ñu denk wàllu njàng mu kawe di Cheikh Omar Anne jàpp na ni nag les nouveaux bacheliers dañ leen di orienté ci fi nga xam ne nag moom mooy université publique yi nekk ci réew mi loola waral nag muy xam xamle ni dinañ ci def seen kéem kàttan ngir nag mbir mi mën a antu ba tey moom Cheikh Omar Anne ci yéenekaay bi muy xamle ni bor bi nguur gi amal yi la établissement privé dinañ ko fay loolu nag toll ci ñeenti milliards dinañ ko amal fii ak 2020 ñu dem ànd ak tribune yéen kaay daal di wax ci leneen phase 2 bu plan Sénégal émergent euh, jafe-jafe ci wàllu budget dépense publique ba sax ki nar a wuutu njiitu réew mi Macky sàll ci parti bi di APR Alliance pour la République ci atum 2024 moom njiitu réew mi makki Sall nag tribune di ñu xamle ni fu mu toll nii kidnappé na ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jëwriñam ndax nag séminaire gouvernemental bu ñaari fan la ñuy amal loolu nag tàmbali ci bi dina dem ba uh, suba loolu nag ngir nag ñu mën a càmbar jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci réewu Sénégal le quotidien daa di àddu ci politique ba tey ci wàllu nag statut chef de l'opposition kan nag moo nar a jiite kujje politique fii ci réewu Sénégal le quotidien di ñu xamal ni nag mbir moomu dañ ci wax rek waaye du mujjee fenn mu njaay Cissé bu ONG 3D ne nag ñi fare ci kujje gi ñoom ci seen bopp ñoo dul juboo ci kàddu ngir nag ñu mën a leen jiite ca booba jamono Dakar Times daal di fësal ci xëtam bu njëkk nataalu Idrissa Seck ndaamal Kajoor boroom parti bii di réew mi yéenekaay bi dine ne jafe-jafe yi ñi nemmeeku ci parti démocratique sénégalais Idrissa Seck moom am na ci dëgg ndax nag li ni mel waxoon na ko bu ñu fàttalikoo ci atub 2005 moom idrisa Seck yëkkati woon na ay kàddu yi ni mel loolu nag la yéenekaay bi daal di fësal ci xëtam bu njëkk réew mi quotidien moom ba tey ci wàllu politique la des ci jafe-jafe yi ñuy nemmeeku euh, ci parti bii di pur parti de l'unité et du rassemblement Issa Sall ma nga xam ne euh, jëlee nañ ko ca euh, liñ ko dénkoon waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ña ca des ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmed lu Loum bokk ci ay kàngam directoire parti bile moom nag mu yëkki ay kàddu jëmale ko ci professeur Issa Sall ndax moom li mu wax nee na Issa Sall sax li nga xam ne mu ngi koy mbubboo di ab professeur buñ ko xoolee ba xoolaat ko wax kese la professeur Issa Sall du jàngalekat leneen lu ñu jàpp ci bile yéenekaay di Pape Gorgui Ndong nekkoon fi ministre de la jeunesse nee na APR niñ ko organiser baaxul mu jàpp ni nag ñoom fu mu toll nii li ñu yor ute nak lu ñuy woowee parti l'observateur le journal di groupe Futur Média tàbbi ci leneen ñeel drogue bi ñu jàppoon ci port autonome bu Ndakaaru ñeenti européen ñoom nag jàppoon nañu leen ci mbir mile waaye nag fu mu toll nii dañ leen bàyyi bi di ne lan moo waral nag doyen de juges ak procureur de la république jox leen liberté provisoire nekk ñaari allemand waaye it ñaari italien ba tey bu ñu desee ci yéenekaay bi mu ñuy xamal ne mbir mi lenn waralu ko nag lu dul ñi leen di layool ndax nee nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy procureur ak doyen des juges ñi nga xam ne ñooy seen client dinañu des ci réewu Sénégal du ñu génn enquête yéenekaay daal di indi leneen ñeel nag faatu Lalla Camara yéenekaay bii di enquête nag dinu ne Moustapha mi nga xam ne nag moom moo def jëf ju ñaaw ji daan nañ koy tëj giiru dundam waaye nag mën na am lu ñuy woowee commutation de peine loolu nag fii ak ñaar fukki at ak ñett la bu teg téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay fan magam bu góor nekkoon nag ak soxna sii di Lalla Camara ne nag kii nga xam ne moom moo def jëf yi ah, dootul rakkam bokkunu dara ndax nag li mu def dafa jéggi dayo ñu dem ànd ak record dal di wax ci euro 2020 éliminatoire ah, juróomeel bi fan yéenekaay bi nag ne diggante Allemagne ak Pays-Bas match bu nara tàng lay doon ñu dem ànd ak sunu lamb le quotidien des arènes sénégalaises daal di sekk waxtaan bu yaa ak euh, bombardier le B52 de Mbour mu ne Ama Baldé Boy Niang ak Reug Reug ubbil na leen ay buntam ne nag mu ne moom Bombardier fu mu toll nii kii di Balla Gaye 2 ak Modou waruñu bañ dajeeg moom ndax nag war nañ war na leen jox revanche teyit nag arène bi waruñu ko yemale rek ci juróom ba juróom benn ci ay VIP war nañ ko ibbi ba ñëpp bokk ci ñu daal di koy tëj ak yéen kaay bii di critique daal di amal gëstu bu yaa muy am jëkkër am far wala am jabar ba noppi ut cero teg ko ca wet ba yéene bi nag ak ñim ñu waxtaanal ci askan wi jàpp nañ ni mbir mi lenn rek mooy li ko waral teel a bi ñuy teel a maye wala ñuy may la jëkkër wala jabar joo nobul ak perte de valeur bi ñu nemmeeku ci jamono jii ak matériel bi ñu topp mbokk yi li may li yéen a kaay bindoon ci bésub tey bi kon bokk fii lañ koy yemale ñu ñaanalante wassalaam gërëm ko bu baax moom soxna Fatima Diallo ñu itam foofee la ñuy yemandeek yéen mbokk yi ci xibaar yi file ci première chaîne de télé privée bu Sénégal jaajëfal leen ci topp gi gërëm ñi ci jàpp mu yemb di ngeen àndaat ak rédaction bi 19h ak 20h incha allah ak yeneen yi xibaar lay doon laata loolu ñu bàyyi leen ak suñuy programme jumaat mubarak